réew mi 24 TV. di fi liggéey te am sa teranga dem di voter opposition waaw mënul nekk dégg nga man de xool xëcc sama bët di xool ku voté xam naa ku voté wul xam naa fii nag moom élection président yoo élection député beneen affaire la fii maa fi maire. li ma yoroon waxuma ko ànd Ba maa ngi bokk ak sama mbokku olof yi wala mbokku donc maçon yeeg menuisier yi ouvrier yi nekk ressources yi ñoo xamante ne tey jii dañoo jóg taxaw temb pour voter contre Amadou Ba ñooñu laay waxal. amu leen droit voter keneen ku dul Amadou Ba élection bii di ñëw. Ah amoo leen droit votel ku dul Amadou Ba mu doon ay révélation yoo xam ne Moussa Bocar Thiam moom moo ko yëkkati moom mii di Moussa Bocar Thiam fare ci nag euh, parti bi di euh, APR bokk ci coalition bi di Benno Bokk Yaakaar nekk maire foofe ca gi yëkkati ay révélation yoo xam ñu bari ci askan bi mer nañ ba fut ci jëf ji nga xamante rek Moussa Bocar Thiam daal dina koy def population bi nga xamante daal dina koy wax population bi nga xamante rek moom mooy bu wurosoo gi mu doon ñu bari ña ñaawlu rek di xam ne ne rek lii mu wax nii wax la joo xamante rek du waree fam tayit mënu ci dara ndax kat ku ne xam na organiser élection la yor di citoyen comme ñëpp wara a voté waaye maire warul tax rek muy imposé waa wurosoo gi di leen wax rek da ngeen di votel Amadou par A ou B loolee doon jëf joo xam ne ñu bari ña ngay wax ne kii méritéwul maire bi nga xam ne rek moom lañ ko jox ndax kat askan bi war nañoo xool ñi ñuy jox ay maire di leen fal waaye Moussa Bocar am wax ji yi nga xam ne wax na ko daal ñu bari jamono yi ñi ngi rek partagé bi la vidéo di ko naqarlu ngir jëf joo xamee ne rek wax na ko ñi nga xamante ne moom mooy askanu Rosso gi mu doon loo xamee ne ñu bari jàpp nañ ne loolee wax la joo xamante ne rek jàpp nañ ne da ko rëcc waaye ji wax moom mënu ci dara ndax kat ku ne xam ne ci mbañ gàcce ga yow rek yaa fay ne yaay suwaal ku la neex nga voteel ko kon mu mel ne Moussa Bocar Thiam wax ji daal daal dinay metti Sénégal yu bari